kon dafa am loo xamante ni dafa ñaaw ci ci deru Sénégal dafa ñaaw ci gis-gis dafa ñaaw ci. ma wax li ma gën a metti ñu jël Adji Sarr naan na ci wax Adji Sarr lu muy wax Adji moom càggal la def boppam ba pare ndax moom du viol kee dafa déclaré viol nii dañ ko viol Adji Sarr viol viol lañ ko ci ay waxam dafa ni na Sonko waat ni ba xam mos sa seq ak moom. seq ak moom boo xam ne moom da ci d'accord kon loolu viol kon moom amul priorité sax lu mu ci wax moom kon bu fekkee sax am na moom loolu la wax. lu xew ñu ni Adji Sarr génnal dañ cee war a wax ndax li daal kee moo la de bokk leen di sax kaa aji kii dañ koo créé woon pour def ko càgg moom moom waa ji moom ndaw si yow nag dañ laa fekk ca loola nga di ko def yow. Adji bi sa kaa jógee ñaata góor ñoo révélé wu taxaw dénoncé wu wan ni seq nga ñoom ñi wan ni ci liggéey boobu nga nekkoon miss bi déggoo kenn ku ko wax de te ba muy plainte ay mbokkam ay mbokkam la àndal yow nag ba ngay plainte gouvernement du Sénégal nga àndal. kon ñaari kaay mu ñoo bokk de kon kii dafa siir ni moom liñ ko def dañ ko koo def. ndax moo tax mu dem ba ci ay mbokkam ànd ak ñoom génn révélé woo ak yaayam ak ñëpp yow nag bañ koy def ana sa yaay ana sa bàjjan ana sa tànt ana sa maam gisuñu ci kenn. aji bul jël lu jóg ñu poussé la ci nga ciy gën a dugal sa bopp ci ndëgg sërëx te sax fi ngay ciy teg sa tànk ay liir yi ñu lay bindaloo nga di ko lii rek. li la war mooy li la Sanjog wax barki démb rek. ki nga euh, nit mën na saf ñaar yoon comme que fàtte nañ sa cas ba nekk nañ ci cas Miss bi nga xam ne moo gën a urgent moo gën a moo gën a moo gën a waar sa cas ndax yow da fi déclaré woon ni da nga ëmb ba léegi mën a gis sa doom kii nag moom daa génne doom teg doom jam 6 mois kon kii moom ëmbam kenn sikki sàkkatu ko violam kenn sikki sàkkatawu ko yow nag danga dañ la violé da nga ëmb depuis euh, bi bëgg a dugg deux ans gisuñu doom gisuñu ëmb aji kon bul jël sa cas boo ko boo ko yamale cas bokk bokku leen de Adji Sarr sa cas ak cas ndaw si bokku leen comme yàlla ak yàlla yow ba léegi senegal yi ñuy déglu seen doom bi nga xamante ne da nga moom nga moom moom nga ëmb ba léegi mënuñu ko teg bët Adji nga bëgg a jël sa cas boo ko tëkkalee cas Miss Sénégal bi Miss Sénégal kenn sikki sàkkuwul ak ak ak ak kenn sikki sàkkuwul ak violam kenn sikki sàkkuwul ak am doomam yow nag an sa ëmb an sa doom an sa viol an say témoin que ñun ñoo ko mooy firndeel ni yow dañuy mi Sénégal dafa jël firnde teg ci taawal mooy doomam la ngi nii six mois la amul jëkkër amul dara yow nag an sa sa doom kan moo firnde kan mooy say témoin état du Sénégal mooy say témoin ñoom ñooy say firnde egg nañ sa kaw kan moo fekkee kan may témoin yi rek dañ maa violé ah aji waxoog ay dof waxoo ay jaahil waxoo ay innocent ay doomu aadama ay boroom xel ngay waxal aji saar ay nit njaay ngay waxal kon bàyyi lu jóg nga jëm ci duwal sa kàddu xale nga judduwoo aji yii ñu lay defloo di la manigancé ci yii nii maa ngi dégg seen explication Françoise Hélène Guèye Kodas la xaw ma fi mu toll da ngeen am problème ndax fi mu toll daa am ñeneen ñu la aakimoo ñu la gérer ba tax na moom neena na bu ñuy saagaati bu ñuy saagaati El bu ñu lay saagaati moom yoonam nekkatu ci sa dossier moom tegee na ko côté moom Françoise Hélène Guèye maa ngi maa ngi maa ngi maa bi mu bu kenn ñëwati ci Kodas di fa jooy waxee Adji Sarr la ma leen waxoon rek wax naa ko barki dem ci benn groupe WhatsApp ñu naa ma Kodas Kodas man leen gis ngeen ki ngeen àndal muy Françoise Hélène Guèye lu dul boppam gëmu ko lu dul intérêt personnel gëmu ko du dara te barki Serigne Bamba di ngeen toogaat fii ni Fall Paradise waxoon na ma ko dama ko dund ak Françoise xam ko bu baax xam ay qualité xam li ko tax a jóg xam lan lay ñoddi ak lan lay représenté suba ci Sénégal ak lan la fi bëgg a doon. ak lan moo tax combat bu jug mu jëm ci mu jëm ko jëm jël def ko combat am yéen ñu ko séq ak ñoom yéen ñëpp lay duulul ma ko xam bu baax yaa ko topp nekk ak moom di dégganteeg moom di weccanteeg moom ay xalaat di jël ay vidéo di ko envoyé muy posté ñoo yëpp ñu dund ko man ak moom ana fi dool yéen ngi rayante yéen ngi duuloo sama sa Kodas ñun ñoo porté woon combat bi ci Kodas ci la la juddoo ci kaar Adji Sarr ci kaar Adji Sarr la juddoo tey Kodas boobu nee nañ tey Adji Sarr bu mu fi ñëwati ndax dafa am ñeneen ñu ko aaki moo ko dafa am ñeneen ñu ko jël bu di di séparé ko ak man te barki dem lañ gis mu xote yére yére ne ay chaîne Adji Sarr sot génn di di sant ko gërëm matagul un mois deux mois muy leeral barki Serigne Bamba barki dem mu gën di leer moom Fra moom Françoise naan bu kenn dugg di Kodaas bu Adji Sarr nangam sangam dama toog ni leen aji Françoise Hélène Guèye du ku baax Françoise Hélène Guèye Assane Diouf Françoise Hélène Guèye Kaliphone Sall Françoise Hélène Guèye Dior Françoise Hélène Guèye Reine Diop Françoise Hélène Guèye tout ki nga xamante ni yaa ngi ci laaj Françoise af na affrontation ak yow. te démb ak barki dem da ngeen nekkoon ay gaañ di déggante di waxtaan xoola kaari joor moom François duuloo nañu tey bu subaa àndaan nañ seen i maam bu ginnaaw subaa duuloo waat nañu moo Kaliphone Sall ànd nañ tey ñu tàggante seeni i maam ginnaaw suba duuloo nañu mook Assane Diouf même chose Assane Diouf mi nga xamante ne di démb ak barki dem François amul lu mu utilisé woo Assane Diouf amul lu mu doxewu ci kaw Assane Diouf te xoolal tey mook Assane Diouf hmm? gëmul lu dul boppam moom François keneen ku mu toog naan daf lay jàppale ndax barki de maa ngi gis benn live fu Adamo mu ne François ne da ko yónnee un million pour problème bu mu amati ci affaire sociale ma ne ko day waxul dëgg day duwul sa bopp rek la bëgg a sa bopp bi rek la bëgg a maanaam pour ñëw combat bi muy mëne nga jëm ko ci jàppale maanaam mu lay jox ay nga di leen saagaal ndax moom ci yooyu lay dox ci yooyu lay dox. te xam nga ne gis na ni yow ni nga live nga savant foo ngay dundee léegi mu jéem a ñëw pour collègue wu jëkk si yow Adamo pour jéem a dox sa maayam jëloon jox ana booy Cheikh bi nga xamante ni moom la moom moo nekkoon fii booy xale bu ndaw boobu mu jëloon booy rasamaan boobu mu jëloon ah même loolu la ko doon def loo moog booy boobu ñaata yoon tàggoo moom booy Cheikh boobu noonu te mu tuddee woon boppam prince la xaw ma ñaata yoon moo François lañu ñu ànd tàggoo ci ay duuloo gëmul kenn kon moo tax ki dem su may duggee ci groupe whatsapp di leen wax ñaama non Kodas man leen gis ngeen Kodas ak dem ma njaay ak biram paate jóoba ci yam ki ngeen àndal yàgg yàgg dama leen sax si audio yi ma leen wax téye leen ko confirmation bi mi ngi ñëw fu mu toog naan aji saar bu mu ñëwati bu mu bu mu duggati kodaas kam ko dañ ko séparé ak man ay nangam ak nangam. ASID TV la chaîne des patriotes. même jamono yi muy ànd ak Assane Diouf nga xam ne dëmm rey la jaay la ko doon def di def ay audio ci suuf ak i nit bu Assane Diouf waxee dara ba pare mu dem wax ak ay nit naan day fen ak amul looloo moomul looloo waxul dëgg. te ba pare bu nekkee ci laaj bi di mel ni kuy bëgg a for war na Assane Diouf te boobu Assane Diouf bi ngi nekk ku mel ay ñoom maam seen di nekk ku mel ay ñoom Ren Diop ñoo ñoo xamante ne dañ ko bëggoon ku nekk bëri woon nag ñoo xamante ne ni ama dañu tafoon ci kaw Assane Diouf moom muy xeex ñooñu ngir na bëgg a gérer Assane Diouf ndax bëgg a dox ci bës Assane Diouf pour utiliser ko ndax moom ci loolu rek lay dox ci bësu nit ki lay ñëw bëgg dox ci sa ci sa ci bu fekkee mënu mun mënut dox sa maan def la ennemi def la noonu commencé jàkkaarloo ak yow loolu lay dundam. moo tax man leen génne seen mbiru Adji Sarr ak Kodaas ak lépp ci am doon ci mës sa am ndam barki sëriñ Bamba ndax ki ngeen ko seqal gëmul boppam du dara. sur élection 2019 maa ngi François dañu déggante téléphone bi ma voté jee ba ñëw. moo doon gëm loolu garaaw ci diggante Sonko ak Idrissa Seck du ma ànd ak Sonko ndax na demul doxul kërëb kërëb explication yoo xam te ne toog sax ci laaj bi ko expliqué Idrissa Seck boo gisee ma ànd ak moom gis naa ni te loolu li mu gis ni mooy ñee ay lekkkat riba lañu kon ànd ak ñoom mooy gën a permettre Sonko ne xam na ni Sonko li mu li mu teg moom bu àndee moom du ko arrangé ndax dafa gëm lekk te kee gëmul kuy lekk. Sonko dafa gëm PM gëm démocratie gëmul pour ñëw pour ndax Sénégalais yi loolu la gis ci vision Sonko moo tax mu ne du ma dem di ànd ak moom ñi nga xamante ne dafa yaa ngi dégg yëpp du ñu ànd ak moom maanaam lu ñu yaakaar suba mooy suba lu ñu du diisale seen i poos ni ñu mën a yor yor ci 4x4 yeeg xaama yeeg villa yeeg kii kër yu bëri yi loolu dong tax ñu boycotté Sonko jàkkaarloo moom di ko ŋàññi guddeeg bëccëg pour séparer ko Sénégalais yi. loolu dong lañ ciy jublu jubluñ ci leneen seen combattre seen xeex yëpp loolu la bëgg nañ fi teg nguuru 1960 bi nga xamante ni ñoom chaque jour li ñu gëm mooy ku ñu àndal def le milliardaire ñoom loolu lañ gëm bëgg bëgg nañu bokk nag ci milliardaires yooyu Kaliphone nitu Nedda ko Bandoum loolu moom la concerné si nga man dama nekk ci live bi duma maanaam du ma caga internet ci comme ni ma koy waxee caga internet mooy xamoo fi nga jëm maanaam yow dangay wax ci pour rek nit ñi dina déglu walla pour buzz wala pour dara man Fall Paradise su may wax ci dara du ma wanee sax nii laa ma lu wanee ni nii laa mel nii laa toll damay wax niveau bi sénégal yi toll ak coono gi ñuy dund ak naqar man foofu laa ne keneen la muy wax moom la concerné